jëf ci déglu bi ak euh, seetaan bi mbégteeg bànneex la ñuy am dellu siwaat ak yéen seen émission l'Oeil du Tigre comme ni koy faral def ak yéen talaata bu jot ci waxtu wi nuyoo ci leen sargale ci leen waaye nag du ma ci wéet benn yoon ndax saa su ne dama ci ànd ak moom sama consultant es le tigre de tous les temps maa ngi lay nuyu Moustapha. maa ngi lay delloo nuyoo Mati la fay ni ñuy fay di wax mbokk téléspectateurs yi asalaamu aleykum asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen nekk biir réew ak bitim réew comme faral di def ak yéen saa su ne jàppale ne dinañu moom lañ tàmm di ànd ak yéen ànd ak yéen xam ne jotoon na fee am ñu defal leen yi nga xam ne moo di résumé combat bi waaye dinañ delluwaat foofu nga xam ne moo di diwaanu Italie àndaat ak nga xam ne moom di capitaine Pieka pour li nga xam ne rek moo di euh, deuxième euh, waxtaan bi nga xam ne àndoon amoon na ko ak nga xam ne moo di Moustapha Guèye waaye ginnaaw loolu rek dañuy bàyyi maawo am na mu def ñu dellu si waat ñoo ko moom suñu cosaan la moom làmb moom lañuy waxtaanee mustafaate tey jii dañuy ñëw rek ci li nga xam ne moom moo di ginnaaw bu ñu yooyu ñëpp sargal ñëpp bàyyi xel ñëpp ñi nga xam ne waxtu wi ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu mënti nekk rek ñu ngi leen di bàyyi xel dañuy ñëw ci résumé combat résumé combat nag boobu muñ ak production nga xam ni nag euh, amoon na li nga xam ne moo di dimanche moom la ñuy dem seetaani Maawo. bu ñu jógee ci résumé combat bi rek ci kanam dinañ ñëw ci touche ak ki nga xam ne moo di Batista après ñu dem ci ki nga xam ne touche moo di Ibou Fall ah ñëw ci réaction ki nga xam ne moo di capitaine PK mais maa woo ñu dem ak ki nga xam ne moom moo di résumé combat bu Mouniang production. mais bi dul Zidane Zidane day mbéj jàpp day korose rek Zidane mel ni loxo loxo wéyale nañ ko ndeysaan mu julli meeru Louga daan noonu waaw njàpp daan na Zidane waaw daf ko duma daan ko. Eh! ñu ngi xeex yanda ak caatu jooni jooni yi ñu ngi xeex mbot nañ ko yanda yanda mooy Moustapha Diop meeru Louga yanda yellu nañ ko waaw waaw eh atum maa bëna atum maa mëna double moteur kor nañ ko ca suuf ah aatu mii aatu de ndeysaan julli la julli dun dënn aatu aatu réer na aatu réer na kon tey eh yaay laay la Benteña daan nañ Benteña conteneur daan na Benteña conteneur daan na Benteña conteneur daan na Benteña conteneur bu Thialé Cap-Vert na Benteña bu Parcelles Mbooloo. Giro Seras Dóor Dóoraat Cheikhou Douane ñoomin Casamance. añ nañu laay laay la laa laay laay toog na waxoon naa la xale bi dina jeexal xale yi Giro Seras bu Dóor Dóoraat dina jeexal xale yi daan na Cheikhou Douane bu ñoomin Casamance. Giro Seras xale yëpp lay jeexal maa la ko bëri la mën sew njarnde la. laay la laay. eh eh eh eh waaye Médoune nag man ñaar laa yor yow benn nga yor ah, man def naa fukki at ak ñett ñeenti ci sëy. eh Double Tyson añ na ko daan na ko daan na lamp Double Tyson daan na lamp Double Tyson daan na lamp nga Double Tyson mi xam nga ko moo dëkk Louga ku ci daan rek yaay Moustapha Diop meeru Louga laay laay la laay jël na door na ko. mbat na ko Batista daan na booy rëbës Batista dina jeexal xale yi Batista jël na jël na jël na drapeau na fi fàllu faal Batista jël na drapeau na fi fàllu faal Batista dina jeexal xale yi. jaajëfal ko bu baax a baax kooku di lamin Samba ak Medoune mi nga xam ne moom la àndaloon mu mel ni rek euh, Moustapha euh, lan nga may wax non Lamine beneen affaire la <laughs> ñoo ngi koy sargal bu baax a baax gis nañ ko moom itam mu door li nga xam ne moom moo di jongante ah, ñëwaat nag ak saison bu riche macha allah dañuy yow rek ci ki nga xam ne moo di Batista mi nga xam ne moom moo daan léegi le ci touche bu am solo ba nga xam ni keroog indi na ko ci stade bi ci confiant ñu ànd ak moom. moom Batista loolu la indi ca la nga xam ne moo di stade bi waaye keneen ki nga xam ne moom moo di Ibou moom itam ñëwoon na ak ñi nga xam ne ñoom la àndal def tuus bu neex moom itam ñu xool ko. naan ñëpp kenn ku ci nekk yaakaar nga ñëwee woon ci li nga xam ne moo di terrain bi macha allah kenn ku ci nekk ànd nga ak say mbokk Moustapha daal di ñëw touche kenn ku ci nekk yow bi nga leen gisee avant combat bi loo wax. waaw dèjà bi ñu ñaari mbër yi ma déggee Batista may bëree que Ibou Fall ñu koy booy rëbës rek bon nee naa Ibou Fall gëj na bëree. Mhm. te ci défaite la gëj a bëree. Mhm. et bon kii gën ko jeune encore ba gën ko élancé moo tax dafa ñëw imposé ko rythme moom. moog parti syndicat exact moom mu mm. euh, mujjoon a bëreel. Mm-hmm. ñu daan ko. mu toogoon moo mujjee bëri ak nga xam ne moo di parti xam nga dafa changé woon booy rëbës léegi. Ah, léegi Ibou Fall bi booy rëbës moo existé. bon mbër bu ñu yëpp amoon ci moom yaakaar na parce que début arène am doon def ay. extraordinaire chose mais à un nag dafa chuté. moom benn mbër bu maam góor kenn gisut leen. maam góor kenn gisatu ko c'est vrai exactement ñun ay mbër occasion la nag chance lañ. ci xale yi nag ñu ngi koy.

man Pape Konaté alias capitaine Peka la penseur ki Mekao talaata bu jot maa ngi seetaan Oeil du Tigre fii ci Italie ci Genova lima ci gën a neex nag mooy jërli bi ni ko sama grand di décortiquer euh, maanaam ñaari mbër yaa ngi jàkkarloo Balla Gaye 2 doomu Double moo nekk ci seen ndeyjoor Bombardier nekk ci seen càmmoñ jee moo jiital tànk càmmoñ ngemboo ngemb lu weex li takk dàkkam daan bi ci dënn bi bala Gaye 2 moo ngemboo ngemb bu xal bi jàpp weex xaw ba weexatul euh, takk përëg yi ci tukki bi jiital tànk càmmoñ kon ñaari càmmoñ ñooy bëre alors vamos ñu dem kon nag euh, baamos ñu dem ah, ànd ak ki nga xam ne tey jii jël bi ñi ñuy décortiquer di Noiro ak kooku di ñagas waa Italie Genova yëpp ñu leen di nuyu waaye rawatina waa Torino Siradio Diallo suñu xarit boobu mu ngi foofule dinañ ñëwaat ci moom mi nga xam ne moo di capitaine PK ci kanam ndax nag mooy suñu gan ci li nga xam ne moom moo di jàkkaarloo kon ñu dem xooli li nga xam ne moo di jël bi Moustapha décortiquer ñu ko comme nag <laughs> capitaine PK ni mu ko waxee aywa ñu dem maawo attention daw na lancé léegi benn na daw nañ xeex daw nañ jàppante attention xeex nañ ñoom ñaar daw na jàpp ko noiro jël na ko mu moom ñagas ah waxoon naa leen bu ñu déclenché combat bi ñoom ñaar ñagas noiro attention ñagas a ngay faq attention noiro ngay door ñagas a attaqué léegi voilà ne woon naa leen bu déclenché combat am de. loxo ñagas a nekk ca biir loxo ba ca biir moo yëpp avantage jàppante loxo ba ca biir moo avantage. waaw mais ci kaw mu xam nu mu koy exploité voilà moom Noiro moo gën a avantage ci jàppante bi attention door na léegi Noiro door léegi ñagas door na ña ngay xëy ña nga ca lang ñoom ñaar attention ña nga ca lang ka attention kal na ko ñagas kal na mot ma laa ilaaha illallaah Noiro ko mot ma nekk noonu nu ak nga xam ne moo di ñaga si teewaayu Alaaji Ngagne Diagne borom nag euh, Rofo ñu ngi koy bàyyi xel baax a baax. Euh, lan naka nga may décortiquer li nga xam ne moo di làmb ji. merci damay remercier Ngagne Diagne d' abord euh, Mati ci reportage bu def. Mati ñagaas moo la fédéwé de càmmuñ ngëpp ku peñu crochet droit jiital loxo càmmoñ jiital tànku ba tey ki muy jiital tànku càmmoñ di observer kii di ñagas donc di nga xool ne kon combat bi dafay mel ni dafay nekk David contre Goliath booy xoolaat ah booy xool ñagas romboon na dans les cent quinze jëm cent vingt kilos nga gis ne aussi kon euh, kii di noiro bu àggee cent kilos sax day manqué moo tax jëli bi rëy baamas ñu dem ñu dem ñu ñëw too ñagas ñëw dóor ko dóor si crochet droit nga gis ne kon kii nga xamante ne moom mooy euh, noiro nekk mbër mu ñemee xool ko bañ ba bi ñëw mu sëgg dajeeg moom loolu moo waral mati euh, mu sëgg nii xool ku wi mu sëgg daje ak moom intercepté donc ñagas dafa ñëwoon pour agresser ko jaay ko dalee jaar ci kawam mais je pense que demee noonu xool xoolal xoolal xoolal ma bii position xool ko bañ bi fu mu tegu teguwul fu mu war a tegu romb na bi gis ne kon kii nekk noiru intercepté loxo bi jëmi contact ñagas dafa dem pour dóor yi waa ji dem jàppante jeeg moom kon kii mooy bëri ji kii di dóor si baa ma suñu dem maaw ba tey ñaar si dóor si mu bët mu des ko percé c'est important mat yi daf ko percé bëtt ko ci bokkotaan waa ji tiit bal ko ñaar loxo xool ko bale. percé bëtt na ko amoon na bëtt bi ma lii rek wàcc bëtt ko mu intercepte ko nag moom interception bu baax quand même dëbbu ko benn loxo empêché loxo gauche waa ji liggéey ba pare deux écarté ñaar tànk yi ko po am xam naa ba tey def na rek maa ko doole maa ko gën diis kii mënuma jëme fenn ba avancement ñu dem ñu jàppante nag léegi xool kii nga nooroo imposé ko sëgg combat bu jëm ci suuf <laughs> ki njool mati ak ki gàtt bu ñu ki gàtt bu jëmee suuf su ko njool si fekk see dafay am problème mu ndigg dafay sëgg sëggaay bi day metti day jàpp tànki donc njool suy bëree ndaam bu jàppantee dafa war a siggi moom mooy avantage actuellement dugg si na fekk si na ki nga xamante ne mooy noiro ci schémaam noiro téye na ko sëgg ak moom jëm ci suuf baamoos ñu dem maawo let's go ba pare taxaw di ko déglu moom noiro taxaw di ko déglu intergéant ak lépp dóor benn coup ñagas di yootu mais ñagas loxo bi daf ko waroon dugal mais jàpp ko loxo gauche bi bu ko dugaloon ci biir ngemuwaa ji xëy na kii di numéro am problème parce que day am ñaari jàpp te njool nag wala jàppee ci ndejoor jàpp la ci càmmoñ daf ñu daal delloo si rek ki nga xamante ne moom mooy dubales mi nga xamante ne ku mu si jàpp say gaño ñëpp ñibbi baros ñu dem maaw gis nga de léegi nag ñagas xool loxo ndejoor dafa mu dugg noiro di yóotu fan la noiro jàpp àggul la ndax rallonge ba loxo yaa gàtt wala waajee gudd waaye mu jàpp ca sengoor ga nag sengoor ga nag mati li muy servir actuellement kii di Noiro mooy lan mooy lu lépp loo xamante ne ñaxas def na ko rek Noiro dina ko yëg que jàpp ca ngemb la carrément mais téye nag fi nga xamante ne moom mooy sengoor ya ñu ba tey ñaxas di ko déglu. Ah, ah, noiro di ko dëggal du moins ñagas ko ndengeñ ko normalement dans la logique des choses mais ñagas mi njool sut ëpp doole moo ndengeñ su nga fu mu dugal bopp bi mais Noireau ba tey mi ngi ci logique rek mu ngi taxaw di di contrôler adversaire ba tey rek mi ngi metti gis nga attention waa léegi nag ñagas def na li ko war nag mooy bal na ko siggiloo ko nag mhm. xool ñaar loxo yi bras dessus yëkkati ko ba ci kaw nag waaye nag léegi nga xool nan la kii nga xamante ne mooy Noireau bi di jeu bi waaw ñu dem ba tey jàpp na ci ñaari gañ dugal na loxo bi sëkk ci boxtaan bi bal ko aj ko léegi nag noir lu nag ban géologie nag <laughs> Mati ban géologie mooy def ko jox wet. Uh-huh. parce que bu jàkkaarloo nag moom day jaaxaan daf ko jox wet. xool ma bi ba pare téye tànk suuf ànd ak moom logique loolu lii ñagas def lii noir def du moins ñagas moo ko doon def ndax moo sut bot jol-jol xool ñagas noir bot ko jol-jol ba pare xool tànk ba mu jege ko mu taf ko xool ma tax xool loxo bi ki tànk bi muy tafi noonu ci suuf xool tànk bu mu téye. allah loolu moo doon chute bi mu doon jël bu set wecc bu amul benn benn benn werante. am na noo ko waxee lan mbot jol jol. mbot jol loolu mooy lan. mbot jol jol moom mooy comme euh, comme ni Tafa Gueye ni Tyson defoon Tafa Gueye. Mhm. crochet intérieur. waay extérieur mhm. bi ci biir ngeen dem. soo njoolee wala soo da nga koy mën. soo njoolee boo ko donc ku ci nekk rek jol jol moom mooy bu olof bi nag utsumotaa la ci ci la parce que japonais ñoo créé judo comme làmb ñoo ko moom te nee naa la dañuy fexe nu def ba nu gën a suqaliku dama lay def tey ñaari jëlli bi amat naa beneen jëlli bi ci Modou Séeréer ak ki nga xam ne moom moo di New York ñu dem xooli ko ah oui da koy déjoué New York day déjoué action takk na ko wal ko attention way lang na ñëw moom New York ah way mën na bëre mën na bëre expérience bi des ak ñoom ñaar waaye xale yi ku leen defar ñu doon mbër lii ñu wane dal na xel ne ku leen jàppale ñu dem expérience des waaye am nañu xelum bëre te vraiment dama oo oh, jaxaba laa ilaha illallah kalba war na ko ndomb laa ilaha bu dina ko door na ko suuf ah Modou Séeréer Modou Séeréer ak nga xam ne moom moo di New York ah, nga njaañ ñu koy remercier di kontaan ci moom bu baax a baax ah, nee nga ma léegi dañoo jël ci loo xam ni roofoo la dañoo dem ci machine ruufoo génn fa ay jël yoo xam ne tey deux ans ci ginnaaw kon ñii tey ay mbër yu woo ay mbër yu rek confirmé la ñu war a doon du <laughs> dégg nga reportage bi noonu ma amee doole nañ bàyyi ci ñaari xale yi xel vingt minutes ñoom ñaar waaw. Mati américain moo féete seen bésu ndejoor ah. waaw. Modou séeréer féete seen wetu càmmoñ bi. Mhm. seen ngembu séeréer la ngemb booy xool bii temps kenn terewul ngemb yi silib baa ngi feeñ moo ñuul ni ci ginnaaw ngemb li xonq ba pare li mu takkee ndigg li nag daal di ñëw weex. moo dugal loxoom nii nag càmm ñam pay di di jéem yootu li nga xamante ne mooy loxo gauche am Bahamas maa ñu dem moo di séeréer américain combat bu ñu discuter bu doy waar bu ñu bëree ci façon phase bu ne xool moo di séeréer et percé sur les aisselles ni mu ko defee sax dafa extraordinaire parce que percer sur les réserves xam nañu sa benn loxo bi dugg ci dugg nga wàcc bëtt ci pokotaan mais xoolal xale bi nu mu def ñaari loxo lay jéem a yóbbu ci ci ngemb li bëtt ci pokotaan bi xoolal bëtt pokotaan koo ko def mu jaaxle di jéem seet mu ci génn xoolal xool ci pokotaan bi muy jaar te nga ko boo xoolee moo ko sut moo ko ëpp doole booy xalaat mhm. mais ki nga xamante ne moom mooy Modou Sénéer moo gën a bënd bëri xoolal ma xoolal ma ñaari loxo yi mu bëggoon dajalee di ko séet ci ngemb li c'est beau à voir ça xoolal ma lii Vamos Idda Mao mu jël si waat waaw c'est vrai boo duggee ba defee attaque ñu contre da ngay génnaat xool lay defaat ba tey mi ngi ko dëdd ba de xool ko mu koy jéem a dugal taxawal xool fi mu ko dellu si waat ba léegi mooy mooy marquer les points mooy def les actions moo tax dañ ne bon la meilleure euh, façon bi ngay défendre c'est d'attaquer gis na ne waajee ko sut gis na ne waajee ko ëpp mais moom mooy def le combat asso yi fi am yëpp moo ko def gis na kon léegi ki nga xamante ne moom i américain mi ngi dugal loxo ndeyjooram ci ngemb ki nga xamante ne moom mooy Modou Séeréer nekk écurie Cheikh Mbaba war na mën a bët na tax Cheikh Mbaba bàyyi patron ku mësaan bët yenn na la ba taxaw ba am wañ la nga toog ba tey ñu ngi ci léegi nag Modou Séeréer dugal na ñaar loxoom mais ba xool loxo bi di lang personne la bu gaat rek xool loxo bi mu dugal ci biir di lijjanti naka lay jaaraat ci poxotaan bi léegi nag Mao lii nag mooy pàddum jàllawle pàddum jàllawle moo nekk nii pied droit la taxawee indi ko ci pied gauche padd ko nga xool ne kon son adversaire mi ngi dans le vide pratiquement mi ngi ci xiili ne xool ko xool tànk ba fu ko teg padd ko tànk ba ca gannaaw jóg mu ànd ak moom wëndeeloo moom avec souplesse bu doy waar ñu ci suuf ba tey jeexul mu jógaat bëtt ci pokotaan mais xool la percé bi am importance bëtt ci pokotaan mat yi doy waar la ci bëree xool bëttaat na ko ci pokotaan wëraat ko daal di koy xool tànk ba mu suuf maawoo xool bu ñu koy cëppeel di ko daaneel waa ji di résister mu seet pied droit bi mu def ko crochet intérieur xool pied droit bi mu ko yëkkatee ci kaw jaww ji moom la ko defee crochet intérieur ci suuf bi ñu daanu ji mais c'est un technicien ce gosse te man xaw ma ko ah Modou bi xool padd ñu dem ci suuf il enchaîne bëtt yëkkati tànk ba xool tànk ba mu loo ko ci biir. te boo dee la la la la <laughs> euh, bi bii jël moom bu ñu ko gisoon fii ak deux ans si ginnaaw dañ koy nommer meilleur jël xool dafa rafet trop. macha allah macha allah te boo dee xool waa ji moo ko ëpp mais moo ko sut tamit mais waa ji mi xool fu mu xool tànk ba mu lonk. Mhm. xool tànk ba mu lonk xoolal tànk ba mu lonk. waa ji di wuti appui ci loxo ba xool ni mu ko yëkkatee ak benn tànkam la soutenir wu xoolal mais benn instant mu mel daf ko xaaj tamit mais mais parce que xam nga bu ñu la bëttee ci ah, nga bëttee ci seen sa sa sa boxotaan après seen la ci ndigg nag moo nga xamante ne mooy nag moom mooy <laughs> Modou Séréer dafa génn li ñaan machine dafa luxus ci biir bëri bi mhm. imposé rythme moom daan jël bu set ba amul benn doole muy bëri waaye jàpp ni xel mooy daan New York Modou Séréer ñu bàyyi xel waa New York yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi ñuy bàyyi xel seen émission l'œil du tigre tey nag Leewtoo ba tey damay desandi ci ñi nga xam ne ñoo di rappeurs yi ànd ak ki nga xam ne moom moo di Ndia Ndia nag la ñuy àndal nuyu képp ko xam ne danga nga di rappeur waxtu wi jàkkaarloo ñun duñu seetaan seen télévision Futurs Médias maawa ñu dem euh, maa ngi tudd Euh, nekk artiste styliste donc euh, démarré suma carrière depuis 2001. rapport bi nga xamante ne moo nekk entre làmb ak musique rapport de jeunesse la parce que musique jeune moo koy def lamb aussi jeune moo koy def mais boo weesoo. aspect jeunesse boobu am na beneen aspect boo xam te nañ ko am en commun mooy l' aspect entertainment donc euh, aspect bi nga xamante ni mooy aspect entertainment bi nekk ci làmb maanaam mooy booy xool làmb mbër buy dugg dañ koy tëggal donc bu ñu ko tëggalee mu fecc nga xool aussi que ni musique ki koy def aussi dafay woy di fecc donc je crois que loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne moom la am en dénominateur comment de ce fait que il y jeunesse il y a l'aspect divertissement yà aussi un autre aspect mooy aspect maanaam li nga xamante ne mooy développement parce que jeune bu nekk bëgg nga développé wu ci gox bi nga nekk ba ñu ràññee la te loolu moo nekk ci musique loolu moo nekk ci làmb donc je crois que ñetti points yooyu daal laa gis ne am nañ ko de commun. bi ma gën a marqué ci sama àddina mooy combat. Zos ak Bala Diouf parce que man amateur lamb laa damay dem stade maa ngi ànd ak sama benn copain bu ñuy wax mbay Sow Mbaye Sow bu fekkee mi ngi seetaan lii di du bàyyi ma fen ñëpp fi ñu toogoon ñëpp ni Bala Diouf day daan Zos te maa ngi faral Zos ko parce que Zos suma xarit la xam nga moom suma waay la quoi dafa yàgg donc bi ñu bëree bëri bi seetaanuma ko dama taf sama bët ko parce que bëgg moon gis defet bi mu jig sa rek dégg ay yuuxu. ma ma ma laajte ku daan ñu ma sos moo daan rek ma dóor ki ma àndaloon dama ko dóor bu mu këpp léegi mu nekk ñaari victoire quoi <laughs> parce que sos daan na waa ji man daan naa sama copain bi parce que gëmmu woon ne sos dina daan waa ji quoi parce que ak rumeur yi xam nga ñëpp naan Balla Diouf da koy daan ñu ñëw ba ci stade bi xam nga daan waa ji waaw loolu moom je crois que man li ma ciy wax affaire arène bi mooy. làmb dafa mérité plus qu'un arène làmb ko Sénégal dafa mérité plus qu'un arène dafa war a am ay arène tey waroon na fekk ñuy compter arène naan arène bi ak arène bi ak arène bi parce que làmb mérité na loolu ci ñaari fànn laa koy première bi mooy boo gisee làmb li mu sauvé ci jeunesse quoi tey ñëpp am nañ benn rêve que ni mën a ñekk comme Balla Gaye mën na nekk comme Lac de Guiers mën na nekk comme Eumeu Sène wala comme Modou xam nga dawal oto bu rafet te booy xool ci seen doole lañ ko amee sàccuñu ko ñaanuñu ko dañ ko ñafe xam nga ba am ko quoi donc je crois que tey le gouvernement sénégalais liñ leen war a delloo mooy ñu jox leen arène nationale ay arène nationale je crois que loolu mooy yoon loolu lu làmb mérité beneen bi mooy tey boo xoolee un lutteur comme Modou Lo nga gis li muy def en dehors de la lutte muy làmb et éducation moom mu reconnaître que ni jàngul mais tey dina jàppale ay xale di leen ñaax pour ñu jàng. waaw ni ma ko gisee mooy euh, euh, c'est un geste très noble c'est un geste très noble je crois que euh, Lac de Guiers moo ko njëkk a def ak Eumeu Sène di ko Eumeu Sène daane mu ñëw ko encouragé ko. Malick Niang defaat ko am na yenn mbër yu bëri yu ma gis ñu koy def loolu du lenn lu dul sportivité xam nga donc euh, je crois que c'est très important c'est très important des fois mbër yi di wane genre message boobu xam nga ñu la daanee nga xam ne man je suis un sportif métti na defet benn defet ne mais nga xam ne euh, ni la yàlla daan mayee ndam tey noonu la mayee nga ñàkk donc boo ñàkkee rek après xam nga sante ko yàlla nga xam ne lii nii nii lu waroon lu gën ci nga jóg féliciter sa adversaire après ngeen ànduloo ko dem loolu dafa am lu muy joué ci euh, supporter yi xam nga mais buñ la daanoo nga siisu jóg xam nga xëpp suuf xam nga supporter yi aussi noonu la ñuy doxalee mais buñ la gisee yow mi nga xam te ne yaay mbër mi nga def geste boobu noonu je crois dina leen xaw a apaiser quoi par rapport ak défaite bi quoi donc c'est un que je que passage. Ndia moom lañu ñu àndaloon tey ci suñu rubrique euh, Leewtoo ñoom ñëpp nag euh, incha allah rabbi fi ñu toll nii ñoom laa jël muy rappeur yi ah Leng ak euh, Soxna moom itam ñu koy nuyu bu baax a baax Xadi Camara di ko bàyyi xel bu baax a baax ak ñi mu nekk ñëpp Moustapha nag xam nga la ñuy faral di wax kuy dem ku ne soxla nga ku la gunge waaye soxla nga ku la dar. dañuy dem seeti waa BICIC banque bu mag boobu nga xam ne macha allah ne naa leen moo gën ci banque yi ñu dem xooli leen dellu siwaat da ngeen ni yaakaar ni bisik banque lu bu mel ni yeneen banque yépp la dugg leen gisal seen bopp bokk fii ci banque Sahelou Saharienne bi xam nañu ni daje bu njëkk lu nekk xaj na si looloo waral ñun ak suñu client yi ñu booloo nekk benn ndax ku la xam dëgg moo la mën jàppale ci say projet muy ci sa mbiru bopp sa wàllum liggéey sa épargne sa utum kër mbirum jàng ak sax bi si taxaw na ngir jàppale leen banque Sahelu Saharienne sottal seeni projet mooy suñu bànneex bisik kon moo nekk noonu lee Moustapha ñu kontaan ci ñoom baax a baax rawatina waa siège ñu léegi kontaan ci ñoom jox leen tër bu baax a baax banque bi nga xam ne nag damay wax mbër yëpp ak képp kuy liggéey ah dawal nga dem xool la fa ne parce que nag même le CNG de lutte euh, am na appréciation bu ñu def ci euh, bisik bu war nañ mhm. dem seeti leen donc euh, gëm nañ ne c'est la banque de la lutte. Mhm. comme que banque lamb yi rek la. Mhm. Euh, ku nekk nag ki la jige moo la jige mhm. ah. donc merci encore à la banque Bisik. kontaan ci ñoom bu baax a baax jox leen cër ak ña fa nekk ñëpp ñoom Semou Anta duñu fàtte madame madame Dia Aminata Diouf ñoom ñëpp ñoo nga Bisik ñu leen di béggee di kontaan ci ñoom bu baax a baax rafetlu nag ànd bi ñu ànd ak ñi nga xam rek ñoom ñoo diw waa l'œil du tigre Moustapha bu ñu jógee ci loolu nag euh, dama lay may affiche. waaw dama lay may affiche ki nga xam ne moom moo di booy Pambal. Hmm. Boy Pambal nag dafa am combat bu rëy digganteem ak nga xam ne moom moo di Pika. Pika ñoom ñaar nag seen ñaari tur yi xaw ma kenn ku ci nekk <laughs> fan nga jëlee say tur mais ci kanam tuuti dinañ ci ñëw ñu ànd moo di Boy Pambal dellu si waat. loolu naa ci sawar tontu trop ndax maa ngi fekkee ma ci boole di nuyu waa parcelle parcelle bi ma jógee di wax waa Fadia ñu ñëw jàpp ci combat bi Boy Pambal. 3 combats 3 victoires bi mooy sama quatrième combat maak Pika ñoo war a bëri stade Iba Mar Diop te bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla dama koy daan jël bu rëy sama gaay yi foofu woon foofu rek bu at bi suulee sa attaque euh, xaw ma naa ko xaw ma ko xaw ma ci moom lu bëri nag wax dëgg si yàlla. mosoo seetaan fu mu bëree. mosuma seetaan fu mu bëree nag dëgg si yàlla bu dee yàlla dëgg la bëgg rek mu bëree. ban tànk lay bëree. ah man sànq xaw ma ban pay lay bëree mais lu muy lii mu takk ci lépp yaa ko sut man moo sut ci kaw tuuti mais moo ma fa gabari tuuti. après foo ko gisee ba xam ne laa ko gisee. waaw signature laa ko gis nag. ah gis naa ko nii rek mu nekk foo xam nga di jaay la molo di jaay la dijji te xam nga affaire bi du dijji dijji ko gën waaw oh, loolu am na ma koy wax nag te xamal ko ne bu at bu suuf leen a dëggal boppam ñu bëri commencé ci ful ak fere ma daan ko jël bu rëy fu ma jaara morom foofu laay jaara moom ci kattanu yàlla bu taxawee du yàgg fu mu taxaw ma fekk ko bu yow mu dëggal boppam benn yoon rek ñu bëri ko ci ful ak fayda te di woo sama gaa yi ñëpp ñëw jàpp ci sama mbokk yi maa leen di woo ñoom ñëpp ñu jàpp képp koo xamante ni Siré Pambal nga maa leen woo nga ñëw jàpp ci combat bi combat bi du man du sama combat seen combat la tax Pambal dëkk bu doon ne Pambal amul champion loolu du yoon te ñun ñu ngi nii lii mooy suñu lii mooy lii mooy suñu mbir te ci la ñuy yëngu te dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ndax affaire bi ñun dañ caa bokk ndax booy Pambal bu mag maa ngi koy nuyu à def na joloor ci làmb ji te ñun bu soobee yàlla fu mu jaaroon fa lañ bëgg a jaar ci kàttanu yàlla te nag maa ngi woon ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi di ko dalee Simon Grand Dakar di woo waa ñëpp ndax sama mbokk yi nañ fa loolu di woo waa Parcelles di woo waa Kastoor waa marché Kastoor Cheikh Faye la nga daan def rek fa woon fa jox yàpp rek may lekk bu suuf waaw di woo di woo sebes sebes sebes woo ci combat bi nga ñëw jàpp ci bu baax bu baax di woo sama grand frère yi nekk Europe sama grand yi nekk Europe comment ma bëgg ngeen ñëw jëlee billet yi man billet laa bëgg ngeen jëlee ko bu soobee yàlla ci kattanu yàlla le 31 janvier man Boy Pambal arbitre ne fépp si attaque sa koñ see gañ ci kattanu yàlla mu bëgg yéen ñëw yéen yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci combat bu baax a baax. amaguma benn combat daaw bëri naa 3 combats 3 victoire maa ngi ñaan yàlla ren nag ma def 3 combats 3 victoire ci kattanu yàlla. a ñakkura yindal bidiyogun komani miɓe ndugo ɓuɓe ɓoƴ ɓugo ɓuɓe ɓoƴ ɓugo te komani yakko mbaru tem seña ɓuɓe ɓoƴ ɓugo nda lambi selakin cega tema ɓuɓe ɓoƴ ɓugo haɗa ɓen pirma ɓuɗɗi a jelewelleri nañ ci kattanu yàlla sama mbokk séeréer yi ñoom Kabi Faye xam naa ni kontaan nañ parce que nag lan lay wax ni wëj bëggul mooy lan. Ah, wëj bëggul mais en tout cas Mati euh, euh, euh, avenir la. <laughs> Uh-huh. mais il faut que mu am. un encadrement parce que dañuy des fois da nga ñëw di travail xale yi xam ne ñii amuñu benn notion entraînement parce que am na ci yoo xamante ne yu ndaw la yoo xamante ne war nga ko mun mhm. mhm. xa mais est ko mhm. ba en euh, gis nga xool xool xale yi doon bëri ak yooyu parce que euh, BAW xam nañ ko xam nañ ni ni ñuy travailler mais donc kii am na taxawaay am na jëmm mais ba tey génne formam sax mu nekk ponkal. Mhm. Euh, foog mu gis ko ko defal parce que c'est possible. Mhm. mën na dem dans les 130 kilos yi s'il a bien travaillé. wax na lu ma gëjoon dégg tamit je tag je cogne et je gagne ah. mu ngi noonu waaw. <laughs> <laughs> ñu ngi koy encouragé ah. Ah, ñu ngi koy bëggee baax a baax mm. di ko encouragé am na keneen ku mu war a daje mu di ki nga xam ne moo di Pika ñu dem mm. xooli ki nga xam ne moo di Pika dellusiwaat. man la Pika bu Zap dëkk ginnaaw raay. ànd ak sama coach Serigne am naa 4 combats 4 victoire bi mooy sama cinquième combat man ak Boy Pambal ñu war a bëree le 31 janvier stade Iba Mar Diop. waaw man mos naa ko gis mu bëre benn yoon waaw mos naa ko gis mu bëre benn yoon loolu mooy sama xam ci moom quoi moom de dernier combat am daal bagaar la fa nekke woon quoi daa xeex. dominé waaye ji éliminé ko te mënu koo daan quoi ba ñu jox ko kii par décision arbitrale man lépp laay indi damay bëre di xeex bëre moom dootuñ ma ko wax te xeex bi jàng naa ko ba ma ko gis sama deuxième sama dernier combat nga xam ne léegi xeex bi évalué na incha allah muy évalué bu baax. non bi mooy sama premier combat bëgg naa trois. trois combats bëgg naa ko su ma daanee ki bëgg naa beneen combat ba pare doo a ñëw ci troisième date bi diggante Lac Rose ak Sa Thiès bëgg naa fa combat incha allah te lépp bàyyi naa ko ci naa ko ci loxo Pape Abdou Fall Pape ak Laxat Ndiaye man baa ngi woo waa ginnaaw raay gi yëpp su ma limee damay jum mais mënu ma ñàkk lim sama benn père muy muy père Mori Ndiaye. moo jox kat-katam di jënd billet di def lépp ak famille am yëpp ñoom Aly Ndiaye gars yi yëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi ñu gën a mobiliser jënd billet feesal stade bi del incha allah maa ngi woo sama tons Ibra bu nekk Seras ak waa Seras yëpp Ousmane Seck ñoom Adama Kene mi yi yëpp borom jàkk borom escouteur yi waa waa Taliba quoi pièce détachée gars yi yëpp ñoom laay kan canal Tidiane ak sama sama xarit bi def soog yal na ko ci yàlla gën ak jam quoi raxan di woo gars waa Seras waa daral ba ñoom naar ñoom mbër gars yi yëpp ñu ñëw jàpp ci affaire bi jëndal booy ay ticket ñu ñëw stade xumbal stade bi ma jàpp waay ji daan ko comme niñ ko daan defee dem feete ko man ci kaw laay jëm père xeebu ma ko mais li ma gëm la li ma gëm liñ may dajloo man soxla volume ku ne xam na ni ma toll mais dañ maa toj waaw vivacité xeex rek laa jàng moom bu dëgalee boppam du yàgg bu le bu dëgalee boppam du mot une minute laa la bu daw laa du mot une minute lu mu bëgg dina ko fi fekk waaw ok père di lay nuyu yow tamit père Tafa yàlla nañu mel ni yow quoi. référence la macha allah xale yëpp ah bëgg nañoo mel ni yow macha allah ñu koy nuyu bu baax a baax. mais Moussa xam nga émission yi ñu koy seetaan dafa bëri Ngoné Ndiaye géwal nee na mu ngi kontaan ci yow bu baax a baax. Ah, mu ngi lay seetaan waxtu wi ñuy kontaan ci moom baax a baax. mais Moustapha mel ni dañuy ànd ak ki nga xam ne moo di Vandam moom itam ci affiche am mais bu ñu tegee Vandam Vandam kañ lay bëree parce que xam naa ni euh, Boy Pambal ak Pika ñoom ñooy bëri. ñooy bëri euh, spécial bi Vandam ak Mbaye Guèye Junior ñooy bëri grand combat aha hmm. d'accord kon ñu dem xool yi ki nga xam ne rek moom mooy di Vandane dellusiwaat. man la Vandame bu Rock Énergie dëkk Parcelles Assainies yi juddoo Kaolack yaroo Cité Bissap màggee Parcelles Assainies yi. combat. Euh, def naa huit combats. non deux défaites la am euh, six victoires. xam nga béykat yi un peu. waaw dan naa ko seetaan lii ba ma nekkee xale même seetaan naa benn benn mbapatam bu mu ñëwoon koñ ma quoi 97 moom Modou Lo ñu doon bëre seetaan naa ko. moom mu Lo bëri nañu. waaw moom Modou Lo bëri nañu mbapat Modou Lo daan ko boobu boobu maa ngi si mbapat bi quoi di ko seetaan waaw moom dégg naa day tàkk aussi day plaqué te day xeex ko waaw man tamit maa ngi xaar si loolu loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey ànd ak sama gars yi ak staff Rock bi yëpp gars yëpp ñu may liggéey loolu liggéey bi daal pour combat bi maa ngi préparé côté bu parce que moom léegi naa mu ne moom expérience si làmb loolu dëgg la parce que li ma jiitoo si làmb bëri na quoi mais yaakaaruma ne moom ëpp doole parce que ñi may kontaagal yaakaar naa mu ëpp ñooñu doole daal. vraiment naka la tëddee. bi. combat jël nañ ko 3 mois. 3 mois waaw damay ànd sama gars yi jóg fajar ñoom Nokos ak Bantamba ak sama doomu nijaay bi Passoulay di préparer préparation yu métti après suñu ñëwee dem din ngoon ñu dem contact. instant bi moom li si li si des moom réveil musculaire la ñuy def rek def ay étirement quoi ñu doon def liñ doon def mu yéex la dañ koy def pour mu gaaw waaw gënoon na maar xeex bi rek xam naa ne combat bi moom si si xeex lay si xeex lay waaw dama bëgg a xeex moom si combat bi xeex bu métti parce que nee ma dama nee na ma maa lay xaar si tànk yi nga jëm te xamuma daf maa xamul man li may bëree bëree guma ko si arène bi quoi. waaw maa ngi woo waa parcelle yëpp di ko di ko dalee si 1 ba 26 maa ngi woo waa Cité Bissap di woo waa Kaolack Léona seen di woo waa Bentali waa Ñaar Tali waa Jàmmalaay maa ngi leen di woo xam nga di may nekk di maa ngi woo Moussa si tamit monsieur le maire dañoo jàppale mu si combat bi dafa am combat bi dafa am solo ci man quoi parce que xam naa ne am na fu ma fu fu fu sori fu may fu may yóbbu. parce moom moom mu dem ma jël ma rek man xam naa ne combat bi am na lu bari lu ma jaral daal moo tax lu nekk maa ngi ko si liggéey di ñaan yàlla nag yàlla mi nga xam ne moo maye ndam te mu naan nañ julli ko ñaan maa koy ñaan mu ma ndam. Euh, moo nekkoon noonu le Moustapha lan nga may wax ci Vandam yow bi nga xam ne yaa àndoon ak moom ci li nga xam ne moom ma di entraînement yi. waaw Vandam def na saison bi passé deux combats deux victoires. Mhm. dafay xeex dafay bëri ah. ba pare lan moo tax amuñu élément ki nga xam ne moo di Mbaye Gueye. waaw Mbaye Gueye euh, junior mënuñu wax ci moom actuellement euh, lu bari parce que gisuñu ko dégguñu ko. il dafa ne rendez-vous pour ñëw euh, xaar nañ ko xaar xaar ñëwul. mais est tamit ma ma fàttali leen ñoom ñi nga xam ñoom ñooy mbëri yaakaar naa ne Moustapha bu leen woowee euh, pour ñu wuyu ko dafa war a yomb ci ñoom parce que bu dul dara sax dina am lenn loo xam ni buñ ñëwee daañu ko jàngat parce que baaxoo nag koo xam ne ñëw na. Mm-hmm. ay say entraînement matur wala nga sa préparation des mu mottali la. kon yaakaar naa ne soo wootee war nañoo mën nañu wuyu si. def ci am solo parce que mun naa sax comprendre la communication nga am empêchement mais maa ngi ñëw. maa ngi toll fii maa ngi ñëw maa ngi toll fii kenn gisu la c'est pas c'est pas trop méchant en tout cas Van Damme bi ñu gis nii euh, nekk na xale bu pare pour dem ci combat mhm. mais am na aussi adversaire bu coriace quand même. léegi junior mbër bu dëgër la ci ay bëreem moom aussi sax gars yi dañu séntu ne. heure bi war na fekk mu dugg ci làmb ji bokk ba bokk. Mhm. mais tantôt mu def am dent si tantôt mu daanu tantôt mu daan tantôt mu gëj a bëre donc actuellement noonu la quitté aussi écurie euh, bi nga xamante ne mooy écurie école de lutte tigre nekk ci école de lutte Double Less. Mhm. donc ñaari mbër yëpp. ñu leen di souhaiter bonne chance ci combat bi ñu jëm ni en tout cas kii ma gis ni daal muy Vandam ma gis ko mu entraîné et puis entraînement yi ma entraîné aussi il faut voir que ne entraînement professionnel la. def naa étirement. Mhm. def naa ay accélération def na yi nga xamante ne jàngal nañ ko ni ñu entraîné mais comme que nag Mbaye Guèye junior gisuñu ko nag bon dimanche ak jàmm incha allah.

mooy sunu xarit euh, si rajo di la nuyu bu baax a baax ànd ak capitaine ci jàkkaarloo dellu si waat. Pape Konaté mën ñu wax euh, mais tuuti sa carrière. ay jàpp deux mille ñun si lañu ñu suñu suñu carrière làmb ndax euh, Pape dafa débuté ci làmb nekk xale di bëreek ay magam yàlla dogal ñu dugg ci làmb bëreek Sadam bu écurie Medina daan ko. bëreeg Mbodj Diagne daan ko bëreeg euh, Mama Sonko bu Faas sa Mama Sonko daan ko euh, bëreeg euh, nu mu tuddati Issa Pouye def san verdict bëreeg <clears throat> Ernest Diatta daan ko bëreeg Cheikh Diop sénégalais daan ko bëreeg Tafa Junior daan bëreeg euh, bu ci dugg daan ko donc ñi ñu daan Mbaye Guèye Junior bokk na ci ñu daan moom laa mujjee bëreel avant may ñëw euh, donc Youssou Ndour daan nañu. kañ nga fi ñëwoon ak sa comportement lan ngay def si fi dugg si mars 2012 lañ fi dugg si ñëwoon ci ay liggéey ak suñu xarit Pape Thiam bi ak Grand Ka donc bi ñu ñëwee tamit ñu gis ni war nañ fi mën a toog tuuti yokk li ñuy def. Ah, ndax environnement bi ñu nekk may na te ku ñu xool tey xam ni maanaam ñi ngi ci dynamique yokk li ñuy def donc loolu moo ñu fi téye te ak yaakaar naan tamit aussi yokk nañu expérience bu bari ci wàllu sport ak ci wàllu ñuy def parce que grand bi ñu fekk si fii mu gungee ñu bi ñu ñëwee ba léegi mi ngi teg ci yoonu sport te yaakaar naan ni résultat bi moom euh, mi ngi fi quoi parce que képp ku xool Pape Konaté tey ak démb dafa mel dañu delluwaat xale. fi nga yaa ngi def ay combat. ñu ngi fi def ay combat. naa ni bi ma duggee Italie ba léegi euh, ñi ngi ci dynamique compétition bu doy waar. ndax euh, ñi ngi ci trois ou quatre trophées yoo xam ni successive ñu ngi koy gagné. ndax làmb Genova Dakar bi suñu grand ka organisé woon fii mu nekk tournoi de lutte yàlla dogal na ni drapeau bi ñoo ko jëloon. bi ñu si jógee aussi am na beneen làmb bu ñu defoon dara yaakaar naa ne kii tëgg ko boobu dañ ko perte muy l'unique défaite bi nga xam ne am naa ko ci sama carrière fii ci Europe. donc beneen bi bi ñu bi ñu fi bëree bëriwaat nañu Fumara muy bi ñu la tuddee woon muy drapeau Moustapha Gaye muy ceinture boobu yàlla dogal na ni ñoo ko jël bu yàggul ca Bergamo di le 22 passé le 22 euh, bi passé. bëri nañu Bergamo ñun ak Matar Gueye yàlla dogal ñu def ci ndam bu bu rafet donc kon ci dynamique gu euh, euh, euh, Pape Konaté fii ci itali ñu ngi ci cinq combats quatre victoires ci benn benn défaite. combat ci Pape Konaté dafay nekk sur le sur le contrôle du CNG lutte wala ah, mooy dañu nekk à distance mais nag dafa mel ni ay ambassades CNG lañu. ndax ku xam Pape Konaté xam ni Pape Konaté ci dynamique gu euh, luy yokk làmb ci lay dox donc euh, comme dañu nekk fii correspondant bi ñu war a am dëgg-dëgg ak seen bien amuñu ko woon promoteur yi nga xam ni ñoo doon def làmb yi dañuy ñëw fii rek pour jaay culture Sénégal jaay culture sport bi muy làmb ji tubaab bi xamuñu ko ñu bëgg leen koo xamal moo tax bu ñu koy def ñu koy def bëre simple tubaab bi sax dañuy wax ni ñoom bëre door bi bëgg ñu leen noo mënagul am parce que pour mu am dafa laaj suñu suñu euh, comité ba la nekk ci Sénégal ñu jokkoo ak ñoom euh, euh, su ak ñoom pour ci loolu pour mën ko def mu nekk lu nekk en règle. mais pas ba bëri nekk Sénégal ñu ko jël Sénégal war nga am licence Sénégal lan moo tax amoo licence Sénégal. défaut de moo tax suñu licence renouvelé ko mais licence moom am nañu ko donc renouvellement la ñu deful te renouvellement bi lu tax defuñu ko mooy suñu présence mu nekk te yaakaar naa ne def naa ci correspondant boo xam ni jaar ko ci yow ñu yóbbu ko seen réunion si ngeen ci waxtaan ci. ñu dégg ni dañu waxoon ni mbëri dañuy contrôler seen jumbax pour xool ndax euh, amuñu opération yàlla dogal ni loolu Pape Konaté moom génn ci parce que amuñu jumbax boobu problème mu jumbax boobu donc loolu moo waral euh, ren renouvelé suñu licence mais Pape Konaté licence am yàgg na am nañ ko donc loolu mooy problème bi daal euh, est-ce que yaa ngi préparé sa retour dellu Sénégal pour vraiment def sa alors yaakaar naa ni loolu tungu na du teew ñuy nataal ndax ku xool Pape xam ne mu ngi ci dynamique gu làmb ndax euh, entraînement moom du fen nit soo ko xoolee rek di nga xam ne mi ngi liggéey wala liggéeyul donc euh, ci dynamique boobu la ñu nekk liy xew suba yàlla moo xam mais suñu yéene mooy dellusiwaat Sénégal ak reñ c'est bon combat a ak bi a naqari sa carrière. waaw yaakaar naa ne bi ñu gën a neex mooy bi ma tudd léegi rek bi passé mooy sama digganteeg Mbaye Guèye li tax mu neex ma dama daanu jour boobu mais li tax mu neex ma mooy dafa nekk combat boo xam ne combat exemple la. ndax euh, làmb moo soxla woon suñu grand aussi soxla def ci làmb lu nekk euh, bisam war a yàqu ñu sauvé ko làmb nag aw ci lu ma naqari aw ci lu ma naqari ndax li tax aw ci lu ma naqari mooy euh, dama ko def ci ndaw yàlla dogal ci ma ci tur nag macha allah ba ci teraanga yi ma toog nii sax làmb moo ma ko jox kon man mënu ma am ci làmb lu ma naqari ndax lépp lu ma ci naqari rek lu ma ci neex moo ko pour tey su ma mënee toog ak Moustapha Gueye nekkoon xale di rêvé nekk Moustapha Gueye ba tax may bëree ndeyjoor donc dem bay toog di bokk ak moom plateau dem ba muy tëgg sama làmb yaakaar naan kon làmb aw ma ci lu ma naqari quoi franchement. donc ñu dugg ci dynamique boobu bi ma ñëwee Geneva aussi euh, grand cas bi ma nekkal loolu lay dëggal boo waxee mu ne la euh, man gëwuma sëriñ man li ma gëm mooy entraînement. te yaakaar naa ni bi ma nekkee Italie ba ba léegi dëggal na loolu parce que amul benn làmb bu ma fi bëre woote Sénégal pour am xaatim wala mu am lenn. su may dem làmb ay limon laay jënd li kilo limon ci supermarché bi dagg ko def ko ci ay butéel yëngal ko te suma ma demee maay daan facilement te daanaa bëre combat Sénégal dugg fu nekk ñëw ñu daan ma donc kon loolu ba tey day dëggal ni mbër moom égal entraînement waa yeneen ci nan nga gisee les politiciens ak mbëri seen àndandoo est-ce que dëgg la. bon dafay nekk affaire boo xam lu yàgg la aussi dafa yàgg ndax euh, euh, euh, copinage politicien ak mbër. ca jamonoy Senghor ndax Senghor sax moo xaw a dugal euh, complice boobu parce que euh, bàq yooyu mu doon dugal ci ay proverbe am yàgg na yàgg na collaboré ak ñoom Abdoulaye Abdoulaye Falane collaboré ak ñoom Fallaye Balde dëgg laam du dëgg nag kooku day day day li koy justifier mooy ñi ànd parce que gis naa ci ñoo xam ni mel na ni dëgg la parce que tubaabu joor le cas tubaabu joor suñu mag suñu papa euh, gis nañu copinage am ak tanoor ba tey ñi ngi ànd te ba ñuy ànd boobu ci carrière la woon mais gis nañu ñoo xam tamit dañuy ànd absu après euh, du continuer kon dañu yaakaar ne rek ci biir tamit intere mi ngi ci parce que tamit kenn ku ci nekk da gis ci li ngay def sa morom. gis nañ ci élection locale yi passé ñu ay mbër yu bari dugal ci kaso bi ba léegi atteeguñ leen mais ñooñu tam la ngay wax ah, parce que mbër du nervi mbër tamit warul servir milice donc nangu kenn di ñu utiliser ci li muy def. parce que tey ñun ay mbër lañu ay facteur de développement dañ nekk ay ay champion ci li ñu def def ko nekk ay référence kon nag waruñu topp benn nit mu def ñu nervi ñu koy xeexal wala ñu koy ñu koy ñu koy defal des dégâts kooku c'est à déplorer bépp mbër bu koy def c'est à condamner tamit. kon ñu bàyyi la nga défilé wu ci caméra bi tànn ak sa yàlla di santaat yàlla. Euh, di santaat bu baax suñuy ndax gëj nañ maa gis te nuyu sama njaboot yëpp. samay frère euh, ndax ñaari at nga nekk àll diis na euh, ci koo xam dañ la daan gis chaque jour euh, di nuyu nag sama njabootu fii mooy ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel ndax bokk dafa di ñaari xeet mooy bokk deret ak bokk pas-pas donc bokk pas-pas nag des fois dina ëpp solo sax bokk bokk deret ndax tey jokkoo bi ñu jokkoo nii maanaam mbokk mënu ko mag ndax tey kii di suñu mag di kaa nekk suñu grand nekk suñu moroom aussi ah buñ nekkee doo xam ni moo ñu mag lu ne la ñuy waxtaan ci àdduna suñu ko gis mu changé ci benn dynamique boobu rek lay nekk euh, ñun ñii ñëpp yaakaar naa kenn ku ci ne am na fu mu jaar ak ñoom ñun toog euh, waa Sénégal liñ leen di liñ leen di sante di leen ko wax mooy ñi ngi nuyu ñëpp di wax gaa yi ñu dellu siwaat seen xel euh, jéem a sàmm làmb ji ndax làmb mooy suñu cosaan mooy suñu teranga donc di ñaan sponsor yi di ñaanaat nag président de la république encore mu mu mu jàpp ci làmb ji ndeysaan moom moom le di ki nga xam ne moo di capitaine PK dafa wax ci mujjantalam lu am solo muy nañu fonk làmb ji nga xam nga ni foofu nga xam ne ca biir Italie la nekk Genova ah di fa fësal li nga xam ne moo drapeau Sénégal di fa li nga xam ne moo di suñu culture di fa li nga xam ne tubaab yi léegi dañuy jóge fu sori sori ñëw di ko seetaan si muy li nga xam ne moo di làmb ñuy di koy jël léegi di ko yóbbu bitim réew kon jàppale leen suñu cosaan la kon nañu ko fonkaat bu baax a baax Moustapha li ci ëpp solo sax mati moom mooy. Euh, ki nga mhm. xamante ne mooy Pape Konaté. Mhm. dafa nekk un garçon très réfléchi. Mhm. kuy dundee xelam la. ak xalaatam. di communiquer bu baax nag macha allah gars yi dañuy fàtte ne. aussi euh, ci biir écurie Balla Gaye bi mu ah, mati moom moo nekk nii rek suñu cosaan la ñoo ko moom wutiwuñu ko fenn. dëgg la donc on demande plus de moyens rek. Mhm. pour la lutte sénégalaise surtout l'arène nationale. Mhm. on attend toujours. ñu ngi xaar ba tey comme nag tey sénégalais yi xam nañ ni seen xol neexul parce que nag ku nekk xa na li nga xam ne mooy xew ci football def ñetti jëli bi dama mayaat ki nga xam moom moo di feu rouge ak jokkel nga décortiquer ñu ko ñu nuy waat ci baax a baax waa rajo Calabria rawatina waa Bergamo yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax euh, télévision Futurs Médias ñu dem maaw woo dellu si làmb ndoxtu la booy xoo xeexaguñu sax ba léegi dañu daw rek campaloo bëre attention ma ngay door moom Farouche attention mu ngi koy jëmaañ attention na Farouche def ndànk na Farouche def ndànk ndax euh, Jokal day mbaru stratégie voilà dafa bëri stratégie ci bëre moom euh, Jokal moo ñu féete moo ñu féete ginnaaw moo ñu féete jox ginnaaw Farouche na ko yor voilà yor na ko attention dugg na ak coow war na dugg na ko action bu di ko daan na ko attention de ah waay sàcc na ko bay na ko Farouz bay na ko ba bootu ci kawam ah waay da ko fel seet na ko da ko fel seet na ko war ko doomu daan na ko Farouz daan na ko Farouz daan na ko. jokkee laa ki nga xam ne moo di feu rouge naka nga ñu koy décortiquer Moustapha. Mati euh, décortiquer ko yomb na trop. Mhm. ba tey rek bu leen fàtte bëtt pokotaan ñetti combat yi fi jaar yëpp bu ki nga am na percé sur les aisselles bëtt pokotaan. feu rouge moo fete suñu wetu càmmoñ ngemboo ngembul weex li nii dajale ñaari tànk yi nag ci biir jàppante mhm. jëkkal fete suñu wetu ndeyjoor ngemboo ngembu séeréer bu leen fàtte ne séeréer bu ñu tey ngembu dañuy def lu mel ni pneu maanaam téere yi ñuy takk dañ koy boole ci benn buum mu doon genre li ñu teg ci kaw ngemb li nga gis ne dafa weex ci ginnaaw après mu jiital li nga xamante ne moom mooy ci biir la mais nga gis ne kan fii tamit mati dafa am am importance moom mooy kii nga xamante ne mooy feu rouge dafa sécuriser bëreem jël ñaar loxo yëpp dawal ko ci geñoo kii nga xamante ne moom mooy euh, jokkeel jokkeel nag jël benn loxo bi bàyyi ko mu balan mu lang jàppul dara donc loxo bi amul ko benn njëriñ balance ñu dem Mao let's go ba pare taxaw di ko déglu moom feu rouge jokkeel di téye ci ngembali téye ci ngembali à droite ba pare téye téere yi attention au téere ah Forus dóor pour mu bàyyi loxo bi bientôt mu bàyyi normalement Forus gën a jekkal loxoom nag loxo gauche xool ma loxo gauche Forus bi fu mu ko saxal ci dëndu ngemb la maanaam ci naqu kii nga xamante ne moom mooy euh, euh, moom mooy jokkeel blocage loolu bu ñu jàppee sa geño bës talal seen loxo fekk fekk ngemb li waaye jàpp ci devanture yi ngemb li maanaam fii ci naq bi ngeen baal na ci ji daf lay bloqué mbëri ba mbëri mu du mën a bouger loolu la ñuy wax système défensif noonu la kii def ki nga xamante ne moom mooy Forouz def loxo droite bi daf ko saxal ci naq bi loxo gauche bi fu mu jàppoon rëcc na ma ngay yóotu léegi téere ba ñu dem maama babas exactement xool ma lii mati bëtt poqataan dafa am solo koo ko def mu jaaxle xool déjà déséquilibre am na tànk jokkal bi jóg na xool bi c'est beau à voir xool xool fi mu jaar ak flexion bi ba pare nag def def ceinture rotation jëm ci ginnaaw loxo ba doon téye wàcc léegi jokkeel nekk na ci guddi gu bët setagul xool xool bët bi c'est important lii ci bëree il faut être offensif en lutte wër ko ndomba nag ceinture ko xool ma ceinture bi maa woo c'est important léegi nag bu waree ndomba foog nga sécuriser li nga wër nag foog nga jël si ñaar loxo yi takkante ko nag. yaa xam da nga koy takkante nii yaa xam da nga koy takkante nii yaa xam da nga koy takkante nii mais bu ci mun doon rek mooy foog nga sécuriser ko téye ko baax serré fort xoolal rek farouge ni mu gàññee xool muscle yi ni mu dessiné woo xool tànk yi ni mu ko taxawalee téye bu dëgër xëcc yëkkati mu jëm ko baa ma si dam farouge yëkkatil ñu xool yëkkati mu bañ mu ànd ak moom ci suuf xoolal daal di moom nag farouge nag léegi dem sukki benn tànk bi wuti doole waaye fa mu fa mu dugaloon loxo ba ba tey mu ngi ko ceinture bi jóg na ba ci kaw léegi ma ngi ca kaw pokotaan ba da koy wiite ñu dem ñu ñu ñu dem à sa gauche ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem mu rëpp ba tey dara xawagul mu wër ko ndomb ba tey téye ma nga ba tey xool ma ngay gën a xool ma lii encore mu ngi ci kaw déjà amatul benn risque jokkal ñaari loxo yi samp na ko samp benn tànk bi pied droit mu tàllal ko nekk ci trois appuis Farouche nag ne man dafa ma gën a jàpp mën naa gën a wëral sama bëri daa def ceinture complet nag dem téye jiwaat fu mu téye woon ca bañ nekkee ci kaw ñu dem taxaw di ko déglu amatul pression amatul pression voilà mu doon jël bu set wecc bu amul benn benn werante. mais boo dee xool daan bi dafa mel daf ko daanee wet. exactement moo tudd naka. ma xam nga nit boo ko séntu di ko yëkkati mu bañ nga wiite ko. Mhm. déséquilibré ko. dafay dem rek dem tegi loxo. dooleem day jeex. bu tegee loxoom nag mhm. bañ jël bi. Mhm. ah nga nekk ci ko xam rek tiim ko. fii forage moom daf ko mu yéen mbëri. roc loxo di dóor. waaw rek sax mën naa daan nga daanu daal. exactement baax na kon feu rouge ak ki nga xam ne moom moo di Jokal ñoo àndoon noonu le bu ñu waxee làmb nag ba tey Moustapha dañuy wax ci li nga xam ne moom moo di taaru làmb taaru làmb nag ku ne xam ne fi ñu ni ci làmb la bokk euh, ndax nag jigéen ñi léegi macha allah dañuy dem ci làmb yi bu baax a baax. dañ dem ah, mati waaw yàgg nañ cee a fës nag dafa mel ni. Eh, exactement parce dem da sa soxna mhm. ngeen couple ku nekk sañse ngeen toog ci kaw tribune yi mhm. loolu nag dafa mel ni moo dekkiwaat mati dëgg la mm. moo dekkiwaat moo tax soxna Kati Sarr loolu ko gën a neex ci rubrique yi nga xam ne mooy am ci l'œil du tigre kon dañu dem xooli li nga xam ne moo di taaru la mu dellusiwaat. ko nekkoon noonu nag ma gis ci ki nga xam te moom moo di la directrice kooku di Adja Si waaye sargal ci bu baax a baax maam Siré soo Sonia Ndiaye ak ñi ñi ci xàmmee ñëpp sargal leen ci bu baax a baax Moustapha Diatou lay buuru Mbadane moom itam ñu koy nuyu di kontaan ci moom bu baax a baax ci noonu rek la ñuy jaaree dem xoole li nga xam ne nag moom moo di li Mbaye Fall def nga xam ne nag macha allah dañ ciy gis nag chaîne de télévision yu bare bare mu di sunu zapping zapping a ngi door Brice door na ah El Hadj Diouf door na ko droite bu dal El Hadj danga koy jël El Hadj jël na ko caxabal ba woppal na loolu defati na yëf yi ci ne jógee jëm ci saako yi ñoom ñaar tubaab jël na ko saako yi non lu arbitre wax. nañu su lay dab Xaadim nañu. su lay dop xaadim a ngay boot su lay dop xaadim njaay su lay dop xaadim njaay ah ah ah ah Bour Sine mboor na léegi gauche droite waaye dalul Volcan doon na door Bour jël na tànk ba rëpp na ah Siir ak Volcan combat baa ngi noonu. ñaar ñi ngi léewtoo di combat boo xam ne Sidi Diakhaté tëgg Balla Beye daw na jël Bombardier Bombardier lal na ko Bombardier lal na ko Balla Beye jël na Bambal Balla Beye daan na Bombardier Balla macha allah sunu zapping Moustapha mu neex loolu nag ñuy waajalit combat bu doy waa ci diggante ki nga xam ne moo di Balla Gaye ak Eumeu Sène xam naa ni bientôt dinañ ñëw ci li nga xam ne moo di jàkkaarloo yeeg ñoom seen euh, mu nar a nekkati combat bu doy waar équipe L'oeil du Tigre loo xamante ne mhm. ba ko boo ku ne def waaw waaye bu àggee ci booba mhm. da nga xam ne waaye defoon neexul mhm. eh, Balla Balla Beye numéro 2 waaw gis nga Euh, li ñuy wax la rapidité. Mhm. dafa am importance top ci discipline bu mu mun doon nag. Mhm. muy football ak. Mhm. muy basket lu mu doon rapidité. gis nga il a le jeu. dugg ci tànk yi waaye di ko dóor mu bañ. waaw génnaat au moment waaye yu bëgg a dóor mu wàcc tànk bi xëdd fi mu jàpp tànkam nag Bombardier tëdd rek la mënoon def. parce situation tànk dafa am ñaar ñaar boo jàppee lu lu yées lu wàcc ci oom bi. jëm suuf boo tëddee rek mhm. waa gi dafay nangu tadd dafay nangu daanu mhm. Mhm. sinon bu nangul daanu am na lu mën a sëkk ci moom loolu moo tax chute bi yomb noonu ñaan yomb na mais fa Balla bëgg Balla Beye 2 téye ak ni mu ko xëcceeg ni mu ko tëddee door ci mbëggam loolu moo am importance ci combat moo am importance ci combat te moo bett ñu baree bari ci combat bu mu xew woon foofu te diwaanu Thiès xool fa mu téye ah, li ca suuf la téye <laughs> <laughs> rapidité dafa baax ci lu mu mënti am jàppane lu ñor tàbbeeg lu ñu gësam dañ koy faral di waxee. saa su ne mais bu ñu fàttali aussi mhm. jël na revanche am à à ah. Bercy. waaw daan ko fa jël boo xamante ne jël noggatu la quand même dëgg la ci la jaar jël euh, li nga xam ne moo di couronne ba ca Bercy waaye ñëwaat na fii ci Sénégal jëlaat couronne bi ci nga xam ne moo di. la Lion de Guédiawaye nekk roi des arènes war a bëreeg Modou Lo incha allah ah voilà mais mu nekk saison bu nekk saison bi saison bu gudd la te yaatu. Mm-hmm, mm-hmm. bari ay combat ba pare am na gars bari yu naan mm-hmm. ji dafa nii non lamb ji actuellement mi ngi mi ngi yéeg mi ngi jël. mais mais mais Moustapha ah. gis nga làmb ji sax man li may faral di wax bu ñu koy di foowee li may wax ci ndoorteel ba tey ñun ñoo ko moom. du lu ñu jéggaani. et buñ ko buñ ko wàccee ñun ñooy wàcc. bu ñu ko yégalee ñun ñooy yéeg. li ñuy ñaan kay mooy arène boobu nga xam ne ñu ko nam ma defar ñi nga xam xam ne ñoom itam dañuy am seen stade bi amee handball bi am ko. Hmm. ñi nga xam ñoo di football ñaan yàlla na yemb ba nga xam ne ñoom itam dañuy ndamoo li nga xam ne moo di seen arène. mais bien li moom hmm. boo ko jëlee sàggane ko. keneen hmm. mooy ñëw na ko cas jël jël ko yóbbu. Mati ça fait un moment yàgg na ma naan. bis dina ñëw japonais yeeg coréen yeeg thaïlandais yeeg américain yeeg. Mhm. xeetu monde boobu ñëw Sénégal di bëri. Mhm. parce que xaalis am na ci déjà benn ba pare sport la boo xamante ne sport de combat la. Mhm. donc nga gis ne xale yi kon léegi lu ñu ba xam ne séeréer la. dëgg mhm. mhm. mais li may gis ñu koy def ci làmb gi seen façon tuusee seen façon fecc yi. wax nañ ci guddi wax ci bëccëg loolu bokk na ci dinañ loolu loolu spécial émission lay nekk ci li nga xam ne moo di culture mbiru làmb ji euh, nañu ñëw ci li ci net bi li ci net bi nag tey dama lay may Modou Lo Balla Gaye nuyu ci waa Parcelles nuyu ci waa Guédiawaye aywa ñu dem Maawo weesu na lu toll ci ñaar fukki minutes ak ñaar. ah arbitre sifle na teg nañ ñaari xale yi. Modou Lo moo féete seen ndijoor. waaw Balla Gaye moo féete seen càmmoñ. ku ne jàpp seer na ñoom ñaar ñu ngi léewtoo waaye jege wu jege woon. déedéet seeni loxo laalante wul. du tout Bécaye. waaw Bécaye xam nga lu ma jaaxal. waaw mooy ku ne tari nga doog a ñëw. te ku ci nekk sa tànk càmmoñ nga jiital te jar na loo wax ci loolu. dañuy dox daje. ndax oh, jéggi na la ñuy cong. Balla Gaye met na. waaye demul waaw mais demul. Balla Gaye door na nu. Balla Gaye oh, door na nu. Balla Gaye na nu. daje moom noo ngi dóor bala ngay fab da ko bëgg bañ na mën na bañ war na ko na ko bañ na sànni daaneel na ko bañ na daaneel ko bañ na ko bañ na ko bala ngay daaneel Modou Lo bala ngay daaneel na Modou Lo bala ngay daaneel na Modou Lo bala ngay daaneel na Modou Lo da bala ngay daaneel na Modou Lo c'est le champion c'est le champion waaw c'est le champion da kay bay de bala ngay daaneel na Modou Lo Modou Lo noo ngi toog Modou Lo ngi toog ci suuf waaw mi ngi toog ci suuf Modou Lo ngi toog ci suuf ko bàyyi mu def ah ndeysaan li ñu ci ay bi doxoon ci diggante ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lo mais mu nekkoon combat boo xam ne combat bu bariwoon woon tension la Moustapha un beau combat mati mhm. combat bu ñu abrégé bu mhm. di ko lu yées deux minutes mhm. nga gis fi génn ci xam-xam parce que xam nga moo tax ñaari mbër yu am jom lañu yàgg a xiiroonte yàgg a mhm. ŋaañoonte. Mhm. boo war a daje. Mhm. mais xool état physique bi ak forme bi nga xamante ne moom la Balla Gaye indi ci làmb ji. boo koy xool di ko naat table du mat sax bu matee cent quinze kilos ci lay am. mooy Balla Gaye bii bëri di actionné. mais Balla Gaye bu moom lii mënu ko woon def. nga xool Modou aussi résistance bi mu def ak bëre bi mu bëre. attention loxo ba mu ngooma ci gannaaw moo ko daan mais xool Modou Lo ngay continuer ba nga xool tànk ba mu gàll ci gannaaw. ku mu bëgg doo def lii xool loxo bu mu téye mooy chute ba. loxo boobu su ko Balla Gaye bàyyiwoon mu libre dañuy continuer di bëri jëmale suba bëri bu neex lay doon mhm. mais Balla en tant que technicien ba mu ko bëttee jaar ci pokotaani bi xalab ko ko sokiri mu xam mhm. ne mu ko fii mu yóotu ji benn ba fa tax daanuwul mhm. daal koy daan mbër noonu la mbër dafay mën a jeexal combat waaye nag am na lu am am na lu xew demati li xew moom mooy kañ la ñaar war a jàkkaarloo dajawaat incha allah ndagam dañu def ah, na waar doy na waar mais lu ah la la la la. Ah. yàlla bu ma ko raté ma. Mawa Cissé nee na moom mooy tëgg loolu la xam naa dafay waaj a nekk. Ah, promoteur ah c'est très possible comme que la TFM dugg na ci <laughs> baax bi waaw ba pare di tëgg. waaw nga xamante ne mooy Bombardier astafurlah di tëgg ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène. Balla Gaye ak Balla Gaye mais attends Modou Lo mi ngi bëri ak Bombardier. Mm-hmm. Mm-hmm. attention. ku daan li fi mën a xew mën na bari de. ku daan ci yooyu combat. Mm-hmm. da ngay gis ne kon Balla Gaye tey jii. su su su Bombardier daanee Balla Gaye am na chance su wuti revanche am. su Modou Lo daanee Modou Lo na ñëw jël si revanche boo xamante ne. ma yaakaar <laughs> li nga xam ne moom moo di làmb ji parce que nag macha allah dafa war a nekk loo xam ne dafay dem warul taxaw benn arrêt ci noonu nag la ñuy demee ñun itam du ñu taxaw benn arrêt jaar ak ki nga xam ne moo di Iba Kane ànd ak moom ko duggee ci statistique. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u TFM ak soppey aéritique man Iba Kane bu sunu lam maa ñawaat ak yéen di leen defal statistique ci combat buy dox ci diggante Mbaye Guèye junior bi nekk école de lutte Double Less ak Vandam bi nekk Rock Énergie combat bi nag mu ngi am le samedi 31 janvier 2015 stadium Iba Mar Diop palmarès su Mbaye Guèye junior laa leen di njëkk may Mbaye Guèye junior 8 combats la disputé si huit combats yi am na si cinq victoires pour trois défaites cinq victoires Mbaye Gueye junior yi nii la tëddee Mbaye Gueye junior daan na Yaram Gueye numéro deux daan na Cheikh Niang daan na commissaire daan Ablaye Wade mujjee daan Malem Niani donc yooyu mooy cinq victoires yi nga xam ne Mbaye Gueye junior bi nekk école de lutte Double Less moom la am Mbaye Gueye junior nag am na ñetti défaites ñetti défaites yi ñan ñoo daan Mbaye Gueye junior Mbaye Gueye junior assurance moo ko yoon troisième défaite am Ndiol Ngor moo ko mujjee daan donc cinq victoires pour loolu mooy palmarèsam léegi ñëw si Van bi nga xam ne Rock Énergie la nekk Van Damme neuf combats la disputé si neuf am na si six victoires pour trois défaites six victoires Mbaye Guèye euh, Van Damme yi nii la tëddee Lamp Fall la daan daan na Ronaldo daan na Noiro daan Sibel bi nekk école de lune Ndakaaru daan Gaynaa ko mujjee daan Alioune Seye junior donc yooyu mooy six victoires yi nga xam ne Van am na ko Van Damme tamit am na trois défaites ñen ñoo daan Van Damme Van ñi ñoo ko daan Jet li moo ko daan général ak doomu Dangu donc palmarèsu Mbaye Gueye Junior c'est cinq victoires pour trois défaites Van Damme c'est six victoires pour trois défaites question bi ñëpp di posé kan mooy jël quatrième défaite bi le samedi 31 janvier 2015 man Iba Kane maa ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain ci beneen numéro Oeil de Tigre ci ay statistiques yoo xam ne yu yu am solo la incha allah jafal ko moom Iba Kane ak waa sunu lamb rafetlu nag ànd bi mu ànd ak ñun moom itam bi mu jàppee ba tey bàyyiwul ànd bi ah, service la parce que euh, ça fait des années bi ñu commencé lay diir ba dañuy ñëw di liggéey ak ñun mhm. et ngis ne kon li mu expliqué combat yi xool Vandam neuf combats trois défaites six victoires Mbaye Gueye junior moo ko jiitu ci làmb fuuf mais moo ko ëppale victoire mhm. ñoom ñaari ñoom ay défaite mhm. donc à suivre dimanche incha allah suivre dimanche incha ay bëkkan yow itam jërëjëf ndax nag ñetti at ya ànd bi mu a yàgg tey dina yaakaar naa diggante boobu baax a am koo xam ni li ñuy faral wax ne ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi muy Papa Dia production nga biir la bokk ci nuyu waa rajo Futurs Médias bu baax a baax Assane Gueye Mamadou ñoom ñëpp ñu leen di a amal bis nañ ko ànd ak moom xooli ko <laughs> dellusiwaat très bien Pape Dia production euh, nekk ci làmb ji di def lutte simple. waaw dama dama defoon le 4 euh, dama organiser woon le 4 janvier bi passé ci arène Adrien Senghor amateur yëpp ne ma 1 euh, million yi dafa ëppoon foofu ne ma dañu bëgg ma tëggalaat leen beneen journée ma jëloon le premier février. yóbbu ko stade Iba Mar Diop fas yéene fa teg ñaari million comme Pape de production moom euh, dañuy def dañu wax ne suñu devise mooy dañuy def luy dox dañuy dañuy fexe mu làmb ci dox donc loolu ci lañ lancé boobu lañ nekk ba léegi depuis 2004 ñu ngi organiser ñu ngi def ay événement chaque saison ñu jël ay journée macha allah journée yëpp ñu ngi koy jëm a euh, yaatal je pense que ren incha allah Pape de production ñu ngi fas yéene dem même dans les régions pour gën a développer làmb ji. waaw su ma jógee ci journée bi maa ngi war a organiser le 8 mars euh, maa ngi nag am choix entre Fatick ak Gandiaye donc ci laa nekk di liggéey depuis début saison ba léegi ñu ngi liggéey ci journée yi mais je pense que fekkente ne Fatick wuyuwul dañ koy yóbbu Gandiaye incha allah pour yóbbu fa vingt nag. waaw euh, journée bi dafa nekk journée boo xam ne dafa dafa rëy ci Ndakaaru parce que. Euh, dañ journée bi sax kañ la. waaw premier février la. ñu darajaale ko euh, ku màgg ci ñun nga xam ne dafa làqu muy ajaratu ñaasa mbeng ñëpp xamoon ko ci Médina bi mu doon yëngu ci wàllu politique ak di jàppale nit ñi donc comme yàlla def na mu làqu ñu war ko nag defal hommage dafa drapeau le premier février stade Iba Mar Diop euh, ñu ciy woo ñëpp ñu nga xam ne ay soppeem lañu woon ak ay xaritam rawatina ki nga xamante ne mooy Pape Diop nekkoon xaritam bokk gis-gis ak rakkam di Pape Moussa Mbengue parce que année yi passé yëpp euh, doon nañu jàppale ci wàllu làmb ci donc moo tax ren ñu déjee ko drapeau bi fas yéene ko yóbbu le premier février stade Iba Mar Pape Dia production. Euh, jaajëfal ko bu baax a baax kooku la di Pape production kontaan ci moom bu baax a baax alaaji Pape Dia sax lañ ko war a wax ndax nag ren demoon na foofu nga xam ne moo di béy ci laay di ko ziar tey rek bàyyi xel ci moom ci journée yooyu nga xam ne moom la jàpp rawatina kii mu ko tuddee di rek soxna su fi nekkoon su baax. loolu cachet bi mu teg aussi ah, Mati kenn tegu ko ci lamb bi. dëgg la non moom jàmbaar la bi ñu démarré lamb ci ay 500 mille la mm-hmm. <laughs> aujourd'hui mu yëkkati baar bi def ko 2 millions mhm. fu ko neex mu tëgg jarul sax mu tànn ay région fu ko neex mu dem ñëpp xam nañ ko léegi ci lutte traditionnelle mhm. Mhm. et puis bu ñu fàttalee Pape na ci ñi lancé lutte ma gën a neex ci amateur yooyu dañuy ñëw seetaan tàccu amul sànnantey ndox amul dara dem naa fa benn yoon stade mais macha allah ni ma leen gisee macha allah. Pape Diop lu ma téeméeri combat nga seetaan ay techniciens ay xale yu ndaw mën a bëree xam bëre macha allah kon nag dañuy jàll rek ci ñi nga xam ne ñoo di internet yi nga xam ne saa su ñoom ñooy animé li nga xam ne moo di Facebook Oeil du Tigre nga xam ne saa su ne leen di tegal benn kanam pour nag wax leen kanam gi kan la li leen tegaloon moo di bii kanam ah nga xam ni nag kanam gi lañ leen wanoon ne kii kan la bari na nag ñu ko ñu ko ñu ko tontu. man de kii ma kan la kii nii. xamoo ah, kan la ah, si léegi xam naa kan la. <laughs> léegi xam naa xam nga xam nga euh, genre kii tennis bi mu yor moo tax ñu baree bari ah di hésité moom la wala du moom. mais kii la maa wan ma kanam bu baax bi. Yékini Junior. <laughs> kon trouvé naa ko man tamit. le vainqueur de Modou Anta. oui comme Kodou Xarañ Gueye ni mu ko. ni mu ko trouvé mais war na am combat xam nga tax amul combat ba léegi. Yékini Junior parce que daaw nag daf fi def combat yi. Ah, neex bi a daaw moo ko bëri ci làmb ji ak sonn ci bay bëgg a dem ak Modou Anta. dagg xotteeku naaj. teewul mhm. tey ji nag amagul combat ba nëgëni. Mhm. bu ko gars ragalee nañ ko wax Yékini Junior. Mhm. il est il est très dangereux en plus. macha allah très méchant di bëri bëri bu leer nañ ba pare nag. am yar am teggin boole ci est que yëg nga ni ñu ngi dox kombaam ak ki nga xam ne moo di Garga Mbossé. Garga Mbossé benn ah que du am ay bugguma ak bëgg ko ñoom ñaar soxla nañ ko. Mhm. donc c'est un bon combat donc. Mhm. Mhm. entre entre daal Boy Niang Garga ak nga xam ne moo di Yékini Junior dégg naa ñoom maa ngi wax nag son bu jee. promoteur <laughs> ah, ah, ñoom ñett ñooñu. bu jee. c'est un tournoi ñoom ku ci ne eh. mën na bëre sa morom eh. Euh, maa ngi koy dénk promoteur boobu di son yi bu jee di ko bàyyi xel ak Moussa Mbaye nekk foofu ca diwaanu Kaolack moom itam nekk promoteur ñu ngi leen di bàyyi xel bu a baax ñu dem nag ci ñi nga xam ne ñoo trouvé kanam boobu bi ñu ko wanee a trouvé ku ci ni tey ko Seck yéen a ngi gis noonu tur bi bokk na ci ñi nga a trouvé ak nga xam ne moo di Pape France Jogal Seck moom itam bokk na ci ñi nga xam ni trouvé na euh, trouvé nañ li nga xam ne moo di question bi Matar sekk moom itam ñu ngi koy jaajëfal Pape Papi di Pape Ndiaye moom itam ak Pape Saliou Diop Ada natation moom itam bokk na ci ñi gagné Siri Dieng xam naa nag yaa leen dàqale sant Yugo Fall ak Yacine Kor Dior moom itam bokk na ci ñi gagné ak kooku di Mami Diagne Babou bokk na ci ñi nga xam ni trouvé woon nañu question bi nga xam ni moom la ñu posé woon Aziz Diop Diop mbaacu mi ci taar bi yow itam kenn du yow ah ndax nag gis nañ sa réponse yow itam ak kooku di Alseyni Kayta duñu fàtte rek Babacar Tambédou ak kooku di Modou Aykon John xam naa ne soppee Aykon na moo tax mu doxante ci diggante bi def ci Aykon Ibrahima Samb ak kooku di Guèye teranga ñooñu ñëpp euh, yaa ngi gis seen kay euh, réponse nii. Hmm. trouvé woon nañ que ni euh, ki nga xam ne moo di Yékini Junior la. Ah, c'est très bien donc. Hmm. kon maawa ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ànd ak ñun saa su ne waaye du ñu dem rek te remercier ñi nga xam ñoom ñoo di waa bisik ñoom itam kontaan ci ñoom bu baax a baax ah ñoom nefan yi duñu fàtte rek euh, sa suñu doom suñu xarit nga xam ne mooy di Ibrahima Mbaye Beuz ah, nekk foofu ca diwaanu Canada madame Ba Aïssatou Wan nekk ca bisik ak kooku di Mika du ñu fàtte madame Khadijatou Lis ak kooku di Alioune Badara Cissé Babacar Tine ñoom ñëpp euh, dañ leen di bige bu baax a baax mu sa lan ngay tàngoo balaa ñuy dem di wax mati rek. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Moustapha maa defet bi da laa jàpp. rey na suñu yaram nag. mais bon ah. le sport reste le sport ah. je pense que ne euh, mm-hmm. suñu équipe bi. Mm-hmm. am na temps wu grandir ah. Mhm. je pense que ne dugg nañ ci compétition am mhm. yaakaar. Mhm. Sénégal dañu am yaakaar noonu lañ mel. ñëpp entraîneur lañu. boo dégloo rajo yi sax da ngay waaru ci yàlla. dëgg la mais nag euh, c'est le sport ah. ay équipe yu baree fa daje. foog ñuy gagné foog ñuy. mais Sénégal yi nag amoon nañu yaakaar ni équipe bi dina dem ba final. mais Mate yaakaar bi nekkuloon ci nekkuloon tey xam nga kañ la woon. qualification Sénégal bi passé la woon non attends. contre les les les les les les euh, Bafana Bafana fa la Sénégal waroon qualifié. du ñu am benn pression. dëgg la mais aujourd'hui final la Sénégal doon jiyee ak équipe bu expérimenté. Mhm. bokkoon ci équipe bi gën a ràññeeku aussi. ci mhm. mondial bi donc gis nga rek raison joxe na dëgg moom mooy mhm. gana moo demoon mondial. waaw Algérie moo demoon mondial tey jii. génn nañ ci seen bopp difficilement. il fallait que ñu gagné pour qualifier gagné nañ pour qualifier ñoom ñaar ñëpp. donc kan ngay remercier ku la habillé. dañu war a dañu war a dañu war a grandir nañu bàyyi équipe mu grandir. ñu màgg on a du temps ñu màgg <laughs> <laughs> <laughs> kon nag salaamaaleykum Moustapha Guèye sargal Khalifa Mbergane nee naa leen bu ma kenn laajati ki lay ñawal parce que nag kenn ki rek la jaaro ma ngi lay bëggee di kontaan ci mu baax a baax mu ngi marché HLM ak nga xam ne moo di Moussa Mbaye mooy génn nag ci cheveux yu baax yi ama du Ndiaye moom itam di kontaan ci moom baax a baax ak waa <laughs> bijouterie Khadimou Rassoul wala maa aussi c'est maa ngi lay sargal delluwaat Moustapha di nuyu suñu xarit boo xam ne que ni bu émission bi commencé day bàyyi léppam si rajo Diallo sànq ba yaa ngi dégg ma koy ma koy tudd ak Nefani Malick Nia Californie wala Malick Sow Californie sa Sow ñoom ñëpp su ma limee damay juum ñu doon seetaan ñëpp maa ngi leen di sargal Langstar nuyul mu baax a baax Katisaar Camara suñu chéri ñu ngi koy bëggee dina la ñaanal incha allah ba talaata bu jàmm ci beneen émission Œil du Tigre jaa ngeen làmb di jaajëfal BICIC BICIC di banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC moo leen doon may seen émission